terrain yi ñu jënd nag dafa nekk ay terrain yoo xam ne terrain nii la yàlla def am na ñoo xamee ne fondation woon nañu am ñoo xam ne tabax nañu ba seen tabax yi jóg ci kaw ñooñu fondation woon nag ak ñooñu tabaxoon ñoom ñëpp indemnisé nañ leen fay leen seen xaalis ba mu des ñii nga xamante ne ay terrain nii la ñu am boobu ba léegi amul fu ñu tegul suñu tànk fépp foo xamante ne yaakaar nañ ne bu ñu fa demee mu saafaraw rek. def nañ délégation dem waxtaan ak ñoom bindoon nañu itam préfet pour mu jàppale ñu su yooyu dem nañu aussi mairie waxtaan si ak waa mairie ñu ne ñoom dinañ si def seeni jéego boo gisee nag ñu daje fii tey dañu bëgg ku ñu dimbali si suñu terrain yooyu parce que sonn nañ te ñi moom terrain yi ay borom kër lañ ñii ay jaboot lañ ay jigéen lañ boo xoolee géej gaa ngi dal si suñu kaw nga xool ñii dañu luye amuñu fu ñu dugg ak seeni njaboot kon terrain yooyu tey moom la ñu yàkkaar pour bu ñu ko tabaxoon mën see dem ak seeni njaboot loolu nag nekk loo xamante ne lu metti la si ñun am na si ñoo xamante ne ba ñu demee di xool seeni terrain pour ñëw am lu ñu fa mën a def dañu ñëw fekk teer ba jaal fa jaar fa ñu teg fa seeni bagage am na ñoo xam ne sax dañu daanu ba dañ si jóge feebar loolu nag moom la ñuy interpellé di tàllal suñu loxo président Macky Sall pour mu dégg ñu ndax jigéen joo xamante ne ji fu ne dugg na fa di jaay di faraatu ba am lu mu war a mën a jënd terrain góor goo xamante mu ngi yor njabootam di xëy di wàcce di daan dooleem Covid bi ñëw faagaagal ñëpp ñu yaakaar seeni terrain terre bi xëy jël ko te oowuñu leen waxuñu leen dara ndax bàyyi leen ñuy toltolaan loolu moo tax tey ñu teew fi ñu ñëpp ñu àndandoo di jooy suñuy xol tàng na te amuñu fenn fu ñu ko mën a waxee gouverneur jàppale ñu. préfet nañu jàppale parce que sonn nañ te xamuñu fu ñu jëm te am na yoo xamante ne nag bu ñu ko bàyyee mu law mën na andi leneen. bari nag dafa yàgg si bu ñu ne terrain ñu ne terrain nii la wala ñu ne domaine national la ñii nga xamante ne ñoo defoon lotissement yi si lotissement yi jamono maam yi la woon. amuñu woon titre foncier mais amoon nañ euh, certificat administratif amoon nañ journal officiel amoon nañ ay réquisition comme nag jamonoy maam ya la woon te yàlla def na booba xale yi màgg tey fekkew ñu bari na si kayit yoo xam ne dafa réer am na ñu gis am na ñu gisul bi ñu jëlee nag suñu document yooyu nga xam ne dañ ko lotissé mu nekk acte de vente dem nañu APIX déposé fa suñuy kayit bi ñu demee déposé ko si madame am lañ ko déposé mais bi ñu waree ñëw sur le terrain pour ñëw xool ñi nga xamante ne ñoo fa am ñu recensé leen ñu si baree baree bari yéguñu ko. parce que man mii bi ñu may oo booba maa ngi Dakar te dañ ma oo na ma nu ngi sur le ñëwal léegi dañuy recenser man leen maa ngi Dakar nañ laay ñëwee léegi ngeen di recenser jàppaleen beneen jour ngeen oo ma mais jour boobu lañu ma gëj lañ ñu gëj a oo nag lu ñu bëgg mooy am na ñoo xam ne jot nañu seen euh, fiche de re euh, nu mu tudd recensement am na ñoo xamante ne ba léegi kenn recensé wu leen léegi nag tàllal nañu loxo préfet tàllal nañu loxo gouverneur tàllal nañ loxo président Macky Sall pour mu jàppale ñu suñuy càmmeñ la ak ñun ñi nga xamante ne ay jigéen lañ amuñu doole te suñu kër yooyu la ñu yaakaar te boroomi njaboot lañ.